mbokk yi ba tey ñu ngi indiwaat beneen équipe bi kii nag mooy Liwi Thior numéro de euh, Modou Pouy moom moo nekkoon 100 kilo bi euh, bëri na ci wane na ci boppam euh, dañ koy féliciter moom it nuyu ko bàyyi kom nuyu mbokk internet yi Modou maa ngi lay nuyu baax di la siyaar di la féliciter. waaye ñu ngi lay fay. Hmm. xam nga di nuyu axlu làmb. Hmm. di nuyu àdduna bi yëpp. di wax Sénégal yal na fi yàlla def jàmm. xam nga di nuyu mm-hmm. nag tax nañ làmb gën a feeñ quoi. Mm-hmm. xam ay jamono da nga dem làmb bëre daan nit ki. Mm-hmm. xam nga kenn du ko wane quoi. waaye làmb bu mënti am. ak foo mënti dem si àll bi boo demee bëre. lépp lu fa am manti am balaat balaa vingt et une yi hmm. dugal ko si internet bi. Hmm. kon xam liggéey bi am na njariñ quoi. Hmm. xam di nuyu ñëpp sant ñëpp di nuyu sama gars yi ku si mën sëriñ. xam di nuyu kii Jean Michel. <laughs> mooy tànk yëriñ kii. Tony mooy <laughs> <laughs> nuyu Babou Kane. dëgg la de tool yi duroon ak saa bisal de. loolu moom <laughs> ak ah. ak kii <laughs> waaw léegi damay ñëw ci sélection bi nan nga def ba ñu sélectionné la équipe nationale déggal euh, drapeau chef de l'état. waaw may drapeau chef de bi nag. après ah, kii Père Tafa dafa laaj kii quoi Serigne Ndiaye. Hmm. Tony bàyyi jàmbur ngeen def émission fii affaire ruube yooyu amu fi de <laughs> demal rek demal <laughs> équipe moo garaaw équipe. <laughs> su ma xamoon kay du ma leen boole. yàlla baax na yàlla baax na. waaw ah, léegi uh-huh. dafa bëggoon benn cent kilos. Hmm. léegi après mu laaj sëriñ. Mm-hmm. léegi bi mu laajee sëriñ sëriñ ne ko owal puy. Mm-hmm. léegi après si la si la ma woowee wax ma ko. Mm-hmm. xam nga fekk boobu waa Diourbel sax woo nañ ma pour ma bëri leen cent kilos. xam nga bi bu baax day nëbb sa kanam gi nii nga koy def puy. xam nga waaw bàyyi jàmbur. <laughs> Eh, waaw. après si la ma woowee. na ma puy soxla naa la xam nga pour nga ñëw bërëma cinq kilos ma ne ko amul problème. Hmm. xam nga après si la ànd ak gars yi ñëpp xam nga ñu doon benn bokk ndey bokk baay xam nga di jugandoo dem entraînement xam nga di tëddandoo di yeewandoo. mais mais mais damay ñëw ci ci ci loolu mais sëriñ fan la la gisee ak fan ngeen xamante ba mu ne nañ la woo xanaa daa am fu ngeen jaar yéen ñaar. waaw Serigne waaw. non Serigne waaw man ak mm-hmm. moom ñoo bokk écurie quoi. tuuti rek mu jox waaw man ak moom ñoo bokk écurie Fass. Mm-hmm. xam nga yaakaar naa su ma ñëwee Fass xam nga moom moo ma mm-hmm. xam nga comme moom nag bëri na dañuy contact xam nga moom am na lu may lu may apporté lu bari tax na tey su ma duggee si làmb su ma xoolee mbër rek sama xel su demee si sëriñ dinaa xam man li ma war a def. ndax xam nga si côté poids bi quoi. waaw. kon am na loo xamante ne xam nga maa koy am si moom quoi. Hmm. xam nga amaana tamit mu doon ku baax yaatu daal quoi. Hmm. xam nga seex ak ñëw jàmm day ree xam day kaf. Hmm. mais bi nga ñëwee drapeau chef de ta ñaata combat nga fa bëre. waaw drapeau ta de fa ñëwee. bëri naa ay combat quoi waaye mu moom mënuma la wax xam nga tant combat laa bëre. li nga fa jot a bëri ci combat xamoo no xaw ma ko wax dëgg yàlla. kan nga fa daan ci ci ci mbër yoo xamante ne Sénégal ràññee nañ leen. waaw daan naa fa Boy fay Boy fay laa fa daan waaye man yeneen mbëri sax xaw ma leen. man ni ma gisee ni nag waaye mbëri xaw ma leen de. Hmm. man su ma xasee bu ak yow nii nga daan wala ma daan la damay dem. tàqalikoo ngeen. waaw ci jàmm. Mhm, ci jàmm quoi. ndax mhm. aw ma xaritu mbër duma ma ànd ak mbër. Mhm. mais équipe bi groupe bi ni ngeen doon dundee yéen groupe bi. waaw suñu group bi moom ni ñu doon dundee mooy bokk ndey bokk baay comme ni ma ko waxee sànq quoi xam nga doon benn di yeewandoo tëddandoo xam nga xol yi ànd quoi ñu bokk lépp nag billaahi lépp la ñu bokk lépp. waaw. lépp lañu dañuy teg benn paan xama ñu def xama li ñu war a def ñun ñëpp ñu bokk si. nga benn ñëpp jox tóori. waaw ñëpp loolu yombul si ay mbër. lamb xam nga garaaw ñu nangu loolu ñu ñëpp. loolu groupe rek ko moom. moo tax amaana sax moom loolu moo tax suñu borom. waaw ñu ndam li quoi. ndax ñu suñu xol yi. su doon benn quoi. ndeysaan joxal tóoni tóoni yow moom lu jig njaag yaay njaag yow moom yaakaar naa ni drapeau chef de daaw am na loo fa jànge waaye ren ñëwaat nga ñu baree bare bare xàmmeewuñu la Tony lan nga jëlee daaw Kaolack ak lan nga indi Jurbel loolu laa lay laaj. waaw on bisimilah bisimilah ginnaaw yàlla julli seen nabi sallallahu alayhi wa suñu ñaari waajur bu baax a baax di leen ñaanal tamit yàlla bàyyi fi fekk suñu njëriñ. Mm. di nuyu gox bu ma jógee muy goxu Jandeer. Hmm. di nuyu commune de Notto guy Diama sama commune la ñu ngi koy siyaare baax di nuyu monsieur le maire Maguette hmm. di nuyu commune de Morola Ibrahima Ciss ñu ngi koy siyaare baax moom moom xam nga la. di nuyu tamit commune de Jandeer Assane Ndoye ñu ngi koy siyaare baax commune de Jandeer. Hmm. di nuyu tamit commune de Kayar xam ñu ngi siyaare Gass Ndoye baax a baax a ba Kër Mousse ñu ngi siyaare ñëpp rawatina tund jandeer bi daal ñu leen di siyaare bu baax di ñaanal ñëpp jàmm daal. Hmm. waaw daaw demoon nañ chef de l'état am na lu fa jànge woon ren tamit la même chose mais nag euh, dañuy sant yàlla bu baax parce que jaam moom manul hmm. ñun dañuy sabablu rek di def lu ñu war a def liggéey suñu liggéey la ñu nekk làmb. Hmm. kon dogal guñ fi mën a fekk dañ koy accepter nangu ko. ndax làmb na nañu ne am nañ ci lu ne kon tamit dogal du ñëw ñuy ngal ngalee wala yooyu noonu parce que xam nga bu ñëwee ñëw na xam nga bu la ne xewee tamit ñu xam ne moo xew mais daal ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax. Hmm. waaw li ñu yitteloon ci drapeau chef de l'État Diourbel bi mooy gagné ka te dama yàgg rêvé pour gagné drapeau chef de l'État mu nekk sama carrière yàlla suturaal na ma ba ren naa ka kon tamit day sant baax parce que am na mbir yu ko bëgg amuñu ko ah. Hmm. du ñun rek ñoo fa newoon ah. li la toppee daaw Kaolack bàyyeegu la ba léegi. noo li ma la wax rek football yi dafa metti xam nga amaan ñi xam làmb dëgg di xam li ma la wax. Hmm. football yi dafa métti trop ba tout ça bu la defee football yi boo bàyyiwul xel sa bopp rek man nga am ay gàllankoor ñëw nañ fa xam nga waaj nañ nag du ma ni waaju ñu de waaj nañ li ñu war a waaj def nañ li ñu war a def yàlla nag moo ñëw ak i kon da ngay sant bu baax a baax a baax. Hmm. Hmm. ban nga yi toog ba mu yàgg nga am regret quoi nga rëccu ne démb de bu doon tey drapeau chef de l'état bi du ma ñëw quoi. non yoon bi moom wax dëgg yàlla amul dara luñ ci rëccu parce que li ma la wax rek sëfër bi sëfër bi yor otaam ndogal gi koy dal si tali la koy dalee. Hmm. xam nga mbër tamit ndogal gi koy dal si làmb la koy dalee kon tamit ñun dara duñ dal rek ñu ngi commencé di xàjj wala di wax loo xam waruñu ko wax. Hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax daal en tout lépp lu ñoo xamante ni amoon na ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax. sa première journée ñaata ñaata combat nga bëri. bàyyiwuma xel sa journée yi ak deuxième journée man comprendre wu ma sax comprendre wu ma dara. comprendre dara yàlla xam na ni comprendre bi nga demee léegi li la gars yi doon wax xanaa comprendre nga. si euh, ko bi nga demee équipe bi toog war a waxtaan ak Tony parce que Tony. mi ñu yaakaaroon ne bu ñëwee dina ci génn. bu ma toogee sax duñ wax bu ma toogee sax duñ wax si loolu. xam nga parce que xam nañ kan mooy Tony xam nañ bañkat bi xam nañ kan mooy jàmbaare Tony ba tax na man a général ay audio sax laa daa déglu ñu ñuy wax ñenn ñi di wax ni Tony bu peree na si ay mbokkam jóg xam nga faa ñu financé si xaalis bu bari mais nañ xam ni làmb ak loolu ñu ànd mbër buy bañ ñu jàpp la bul takk ngemb bul dem drapeau si dal daal. en tout cas ñu ngi sant yàlla bu baax parce que yàlla defal nañu si sutura parce que mënoon nañoo ñëw ba ñibbi. duñ am dara mais teewul yàlla dañuy nangu boobaa tamit dañuy nangu ak ndogalu yàlla. Hmm. équipe yi ñu fi ëpp moyenne ak xam nga mbër yi nga xam ni commencé woon nañ tijjee ko yóbbuwuñu dara tey liñ liñ jot a gagné nii amuñu ko. comprendre kon tamit dañuy santar yàlla bu baax a baax a baax si si loolu mi ñu na toolaal. Hmm, nga ñëw ci final bi war a bëri équipe bi Dakar am deux victoires Tony bu daanee Dakar jël champion chef de l'État. Tony bu ñàkkee Dakar day continuer waat di xëccoo titre drapeau chef de boobu bi nga ci desee yow kese ak yi nga bëree daanu ci nga war a dem ci digg géew moment boobu lan nga doon yëpp parce que gis naa ne ku nekk mu ngi la doon gën a dooleel di la épauler. waaw li ma la wax rek man moom dañuy sant yàlla bu baax parce que xam nga am na loo xam ne ni boo koy kaas sax daf naa ak tayeef la. Hmm. am loo xam jarul wax mbër moom ngay toog naa daan maa jaab wala mbër war naa rusa wax loolu daal dañuy sant yàlla bu baax. dañ daa waaj di génn si jàmm tey ñi waaj dog-dog dal na dañuy sant yàlla. Hmm. mais en tout cas samedi si guddi samedi si guddi Modou Poy ak nii dama bàyyi ma fen Serigne Ndiaye ak nii dama bàyyi ma fen dañoo toog bàyyi deux heures de matin ñu réunion ba ay rangooj di fa jóge salaa leen waatal ni suba si kattan suñu borom daal leen jox ndam. kan moo njëkk a jooy. <laughs> non gaa yëpp jooy ah gaa yëpp jooy. <laughs> am na ku soog a jooy. non gaa yëpp jooy. lañ lañ tax a jooyloo nag xam nañ ko capitaine bi ñu jooy. lañ Serigne Seck xol bi moo rafet. mu nekk nit boo xamante ni nit bu dund sport la. nekk nit boo xamante ni. mais capitaine warul jooy capitaine moom warul jooy. xam nga tey. xool xool fépp lay tooyee. xool fépp lay tooyee. Euh, mu nekk loo xam xamante ni daal lu ñu xawoon a métti si côté la. Hmm. moo tax bi ñu toogee ma nga ci kattan suñu borom bu yàlla mii maye suba dañuy am ndam damay daan Mbaye Diop ñi day daan baabu day daan sëriñ ni kon équipe bi jeex na kon gagné nañ drapeau chef de l'État bi pour ñëw ni damay xoolee ñett ñi ñu wax ñëpp quatre personnes yi noonu la demee. parce que boo xoolee tool ni mu doon dugg si vendredi ak samedi ak ni dugg si dimanche nga xam ni yaa quelque chose am na lu xewoon. mais la xewoon noonu noonu yëpp dañ koy sant yàlla bu baax a baax boo gisee sama xatraay am naa lu ma métti maa ngi yor sama béjjën di sànni tas ci mbikaay li sama booy yi tasaaroo fekk leen xam nga yi wax ma leen ni Tony moo ñëw tey boobu nag gëm-gëm bi ma am ak lii sama yaram oyof oyof goo xamante ni mu wóor ma ni man loolu moo ma naqari woon ba tax ñi warul am si Tony sit jëla am si Tony jëla mu nekk lu ma naqari nag te wóor na ma ni mën naa def def aller retour ñoom ñooñu ñëpp du seen morom sax si làmb ndeysaan am na solo joxal ma <laughs> lan nga wax dégg li taw di jot a wax lépp ci ci ci drapeau chef de l'état bi. Mhm. nekk nga champion chef de l'état actuellement lan lañ mën a xaar ci yow rawatina ci bëre door bi. waaw fi nga dugg noonu sax man doon lu ma lu waa lu ma lu xamante ni sax xam lu ma neex la quoi. Hmm. Mhm. nag instant bi dama bëgg gaa jël ma quoi. mos ngaa bëri arrêt. am na quatre combats arène quatre victoire. kan nga daan. daan naa Requin Grand Yoff. waaw daan ñam xam. Hmm. daan lagandoo. xoolal tool yi réer na waaw. tool yi baaxul. waaw faale. yow waxal bu ko faale. daan kii lagandoo. Ah, am na am keneen beneen mbër bu dëkk Pikine. su hmm. sama dernier combat bi. Hmm. moom lañ defoon top. kan moo bëri woon grand combat bi sa dernier combat. sama dernier combat kii moo bëri woon grand combat bi. jàppatoo ko de. <laughs> bàyyi leen jàmbur donc gis nga gis nga yi baaxul actuellement boo ma doon wax sa adversaire ci làmb sa catégorie ñan nga jàpp. comme ñan. ma kuy maama lañu moo war a bëri garga de tàllal ñaanal la ak kan non ah maama ne ci komba war a bëri même maama Lamine bu nekkul ci combat du sa morom maama Lamine non du du morom ci làmb sama boo tuddee sa adversaire carrément dinaa ne la waaw jaaduma limal limal ñoom Mama Lamine ay adversaire am. waaw moo ñu muy bëreel man ñoo ñooy sama adversaire si làmb nag ñu def nañ lépp si bëre quoi si mbapat mais bëre door gisaguñ na ci. bëre door bëre naa quatre combats. quatre ah, mais dese nañ la cee gis. waaw des na moo tax ma bëgg gars yi jël ma quoi. léegi ak kan. mais Mama Lamine Mama Lamine daal xam nga ak yeneen gars yi fi nekk quoi. Hmm. est-ce que duñu jël mbëru simple yi di leen indi ci bëre door bi di leen boole. parce que yéen mbëru simple yi da ngeen na naqaree wutal adversaire. non c'est que affaire bi loolu ragal la ko dama jàpp ne dañoo ragal rek. Mm-hmm. waaw xam nga. Mm-hmm. ñun boo xoolee ñu dañuy bëri ay quatre fois suñu biir comme ña comme man ak Serigne mën nañu bëri ay quatre combats. Mm-hmm. wala ay cinq combats huit combats. xam nga. waaw ñëw arène. ñu bëgg ñu jël ñu boole ñu. Mm-hmm. xam loolu du ko quoi waaw dañuy dañuy jël ñu jox ñu comme gars yi fi nekk. Mm-hmm. bëri nekk fii comme di jaay booy taamu. ñu jël leen am na solo Tony maa ngi lay jaajëfal joxal na Tony Tony maa ngi lay jaajëfal yow moo xam naa ñu ngi lay séentuwaat ci bëre dóor bi. waaw mooy suñu liggéey ñu ngi toog ak suñu staff. Mm. di xaar combat bu baax rek incha jaajëf maa lay jaajëfal waaw di nuyuwaat waa kër biir bu baax nee nañ nga yëngu ci sa yaram bi de nee nañ bëgg bu baax déggoo li ma la wax nag ba xam yaa tooni bi ñëw dimanche ndax tooni bu baax la wala du tooni bu baax tooni ah, tooni bi ñëw dimanche tooni mooy attaqué tooni moo bëre tooni moo def la fa am tooni ko def moo daan tooni boobu lañ bëgg gis hmm. bëri naa man ak bandi quarante ans cinquante kale am na fa tamatul une minute ah, wala de waaw kay <laughs> Ama. <laughs> ama. <laughs> billaay wallaay. sama sama benn sama benn sama benn rak. Eh, ëpp na kees kale. Badi. mën ngaa commenter combat bi ak ni mu <laughs> non booy. maa lay jaajëfal maa lay jaajëfal bu baax. bàyyi waaw dañuy sant bu baax. Ah. dañuy sant bu baax gars parce que ñun nii lañ dëkkee man ak foy sama doom day la moo tax bu ma gisul woo téléphone billaay wallaay day mujjee suñ père kat yi xam nga papa kat yi amadou kat baax day wax ni yéen ñaar ñi daal man xajuma seen diggante mu nekk koo xam ne ni regroupement moo tax ñu miinante daanañ dajee làmb sa daaw nuyoo mais moo tax ma ne làmb day boole xam nga ñu nekk regroupement pendant douze jours ak sëriñ xam nga gars yi ñu seq lépp mais di nuyu waa kër mbir waa kër mbir mhm. kër mbir maa ngi leen di nuyu baax rawatina waa commune de Notto Gouye Diama di nuyu monsieur le maire Maguette Mbaye waa di ko woo pour mu jàpp si monsieur le maire Maguette Mbaye jàpp si parce que ñun dañoo war a dem suñuy moroom ñun naaru sogaat nañ ñu may chance naaru sogaat suñu garaay ñun dañoo bëgg a xam nga nañu may chance parce que ñun dañ ñun bàyyi jëli bu fekkoon dañuy am combat duñ jaay ay billets nga ni tànk mais ñun ni ñuy def stade kenn du ko def stade dañuy jaay billet ba promoteur bi sax kontaan kon ñan ñu may chance ñu mën a biree ak ñoom parce que liggéey nañ fi lu tax ñu man a bëre ak ñoom mais tey mënuñoo toog ñuy jox adversaire yoo xamante ni mënu sax comprendre kon ñun kañ la ñuy dem ak kañ la ñuy fan kañ la ñuy àgg fan jëm xam nga mm-hmm. adversaire yoo xamante ni boo leen daanee yóbbuwul fenn fi nga taxawoon ngay taxawaat buñ la fa xasalee nga am problème kon tamit ñu ngi lay ziar baax di di nuyu tamit suñu sponsor moo get tey moom lañ sol nii mm-hmm. waa di ko wax tamit ni ko xam kontaan nañ ci bu baax a baax équipe bu Dakar bi li mu bëggoon andil nañ ko mooy drapeau chef de bi waaw di ko tamit ni que suñ poos yi moom xisan na poos yi dafa bënn dara néew si xam nga nañ jox luñ fóotee bilisson bi di ñaan yàlla tamit xam nga lépp lu mu bëgg yàlla ko moo get moo get te que moo get moo aay si leer moo get <laughs> moo bu Dakar bi yëpp ñu ngi lay woo waa di ñaan tamit eh, xam nga jàpp si bu baax non non na taal mais mooy wax kay moo get moo wax loolu xam nga kon ñu ngi lay woo ñun waa équipe bu Dakar amaguñ dara nag ñi si amagul ay parcelle bari nañ kenn amu fi dara xam nga ñu ngi lay xaar daal say décoration daal jërëjëf waay. jaajëf jë jaajëfal daal waaw moo gën moo gën moom bàyyi ah daa war a taal lampa yi mu leer nañ. waaw jaajëf poche amul dara. jaajëf poche bënd na xam nga di di di nuyu kii Abdou Karim Sall. Hmm. maire xam nga mu xam nga suñu maire bu bees Abdou Karim Sall xam moom bëgg naa ci mu jàpp si affaire yi xam mu jàpp si li coor bu mbaaw. xam nga ñu jàpp si combat yi xam nga jàpp bu baax a baax na xam nga ay jeunes la ñu xam nekk mbaaw xam làmb rek xam mooy suñu suñu moom la ñu bëgg xam nga mooy suñu lépp xam nga si lañ yaakaar xam nga dara suñu xam nga suñu waajur xam nga si la ñuy dundee xam nga ñu ngi lay woo xam nga fu nga jàpp si lu xam nga Modou Pouye bu baax a baax a baax waaw merci beaucoup jaajëf jaajëf Modou ay